wa qaala aydan inna zaada naka yóbbal ba al muballixa bay aji àggale mooy wala takun bul nekk minal gaafiliina bokk ci way sàggan ña wa abudu jaamul rabbaka sa boroom xataa yatiyaka ba mu dikkal la al yaqiinu dee afa xasibtum ndax jortu ngeen ne annama xalaqnaakum naka bind nanu leen xabasan ngir foox rek ak wala tuti bul top man ka nga xamne aghfalna sagan lo nanu kalbo xolam han fikrina wari sunu tuddu ba wari sunu alquran ji ak wala takunu bu len jeng ila ladina jëm ci nga xamne wala mo togn nañu ak ay yahsibu tax dana jortu al insanu nit al yutraka bu def ko bayyi sudan mi ak nen rek manam toguñu ko jëf digaluñ ko ayuñ ko wa ma rabbuka det sa borom bi ghafilin mi aji yegadi amma walis li nga xamne ta amalona da ngeen ko jëf ak alam ya'lam ndax xamut bi anna allah ci naka yalla yara mi ngi gis ak inna allah naka yalla basirun aji gis la bil hibadi ci jamni wa wassalam ba sun borom ne yonante bi bul bokk ci way sàggan ni ci fàttaliku seen borom ne ko it jaamul sa borom ba kere ngay génn àdduna ak it ba yàlla ne da ngeen a defee rek dama leen sàkk ngir fo déedéet ak ba yàlla ne yonante bi bu fekk koo xam ne danoo gis wan mu gannaaw nu far ko ca loola xolam moom du nu fàttaliku du fàttaliku suñu alquran ji kooku bul ko topp ak bam ne bu leen jéng jëm ci ña nga xam ne ñoo tooñ maanaam ñi ñeme yàlla te waroon doole ci kaw suuf buñ leen yóbbaale ci ñeme yàlla ga bu leen leen sopp bu leen amanteeg ñoom ci seen coobare ak ba yàlla ne ndax doomi aadama daa defee ne dañ koo sàkk rek mel ne jurub kër nga xam ne digaluñ ko terewuñu ko lu mu def rekk baax na ak ba suñ borom ne yàlla day bu leen defee daa yëgut li ngeen di def mi ngi yëg lépp jàkkaarloo ak lépp waaye nag ma ngay xaar rek bis boo xam ne kenn du ko romb ku dikk na nga taxaw ñu xibaar la sa jëf fay la ko ak ba suñu borom ne aboo jëf li moomu nga xam ne bu yonent bi dee julli ak a digle lu baax moom mu ne ko doo ko fi defe xanaa daa xamul ne yàllaa ngi gis yàllaa ngi xam te dana fay kenn ku ne jëfam ku mel ni Abu Jahl ba tey na xam loolu bu baax ak ba mu ne moom yàlla day mi ngi gis mboolem jaamam ñi di xam seeni jëf da di ay laayo yu teqalikoo sëñ bi nag dal leen di sësale wane ne boo boolee laayo yi jàng ko yëpp yëpp lim lay tegtal rekk mooy yóbbal bay tax àgg daal mooy bari la fàttaliku yàlla ci xol ci xel ci jëf te bañ a sàggan mukk mukk ci wàllu yàlla xadiisu sayidi assanadi alcheikhi alxadim radiallahu anhu wa nafaxana bihi amin qaala man kaana ku nekk yuminu di gëm billahi ci yàlla wal yowmi ak bis ba al axiri bi aji mujj fal yaqul nay wax xayran aw yiw aw li yasmut te mu noppi ciw ay ay li mu ci namm xani charri walis ay wa amal imaanu daal gëm nga fa bil qalbi mi ngi nekk ci fas ci xol wa nutxi ak tudd ga bi lisaani ca làmmiñ wa wal xamali ak jëfe ga bil jawaarixi ci cër ya wa man aamana ku gëm billaahi ci yàlla amanu mu gëm bi anna kullama ci nak lepp lo xamne hamilahu jëf nako aw nataqahu wala mu tudd ko alimahu kon xam nako rabbuhu boromam wa man amana ku gëm bi yowmi ci bis al akhir bi aju mujj amana mu gëm bi anna rabbahu ci naka boromam yajji ci dana ko fay kullama lepp lo xamne hamilahu jëfon nako fi dunya ci aduna wa man halima ku xam zalika lolé kalla uñ fal yaqul nay wax xayran aw yiw aw li yasmut te mu noppi àndi charri walis ay wal xayru yiw wa maa mooy lépp loo xam ne yu addi day àggale saaxibahoo boroomam ilal jannati jami àjjana allati ja nga xam ne waxida digéef na ko almuttaqoona way ragal ña yàlla wa charu ay wa maa mooy la nga xam ne laa nafa déet benn njëriñ fii muy nekk ci moom aw maa wala muy loo xam ne yu addi day àggale ila naari jëm ci sawara wa allati wa nga xam ne waquuduha mattam ma annaasu moo di nit ña wal xijaaratu ak doj ya sëñ bi doon na firi addis bi wax ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw ku gëm ne yàlla am na te bis penc dana ñëw nay seet la muy bëgg a wax bu dee aw yiw mu wax ko bu fekkee du yiw bu noppi bàyyi ko bañ koo wax sëñ bi ne gëm yàlla gi balaa mat kooka day boole fas ci xol bi seere ci làmmiñ wi jëfe ci cër yi gëm gu mat moom day boole yett yi xol bi gëm na làmmiñ wi seere na ne gëm na ba noppi nag muy jëfe ci cër yi la gëm nga laaj te ne ku gëm yàlla ku ne dana la wóor ne lépp loo wax mbaa loo jëf yàlla xam na ko boo ca boole na gëm ne bis penc dana ñëw te it boo taxee dana la fay lépp loo waxoon mbaa jëfoon uy kon kat del teylu bala ngaa waxati seet la ngay wax bu dee aw yiw luy maye tuyaaba nga wax ko lépp lu amul tuyaaba rekk nga moytu ko wax ci saw làmmiñ mu ne nag boo bëggee xàmmee yiw ak safaan ba da ngay wax ne aw yiw moom mooy lépp loo xam ne rek boo ko toppee mu yóbbu la àjjana loola aw yiw la safaan ba nag mu di aw ay mooy lépp loo xam ne amul njariñ mbaa boo ko toppee mu yóbbu la sawar wooyu nga xam ne day jëf-jëfi te lay tàkk ca biir mooy nit ñi ak ay docc maanaam rek aw ay moom loo xam ne amul ben njariñ mbaa boog boo ko rek mu la sawara wa qaala aydan ida aradta boo bëggee an tatluwa nga jàng alquran alquran fastaxid na nga muslu bi rabbika ci sa boroom min asheytaani arrajimi kadi kuñ jëm qabla qiraati njëkk jàng ga waqra te nga jàng bismillahi irrahmani irrahim li anna taxawusa ngir naka muslu ga yadraw day jëñ ay yadfahu day jëñ almafasida yàqu-yàqu ya wal basmalata naka bismillahi moom tajlu day ñoddi almasaliha maslaaya wali saalik ngir loolee yuqaddamu def na jiital ak taxawudu muslu alal basmalati ci bismillah li an alquran ngir naka alquran la yamassuhu du ko laal illa almutahharuna ndare ñañu laabal te wa taharatu laab ga isnataani yaar la taharatu zahiri laabuk zahir wa taharatu batini ak laabuk biir wala yamassu du laal alquran alquran biyadihi ak loxoom illa almutahharu dara ka ñu laabal min najaasatin ci sobe wala yamsuhu du ko laal bi xalbihi ci xolam ay limu ci nam la yafhamuhu du ko dégg illa al mutahharu dara ka ñu laabal xam bi nafsi wali sikki bakan wala min bi nafsi wa wasalaam suñ bi neena woon boo bëgg jàng alquran na nga jiital أعوذ billahi من الشيطان الرجيم mooy ñaan yàlla musal la ci seytaane bala ngaa tàmbalee jàng ba noppi door wax bismillahi rahmaani ndax muslu seytaane bi ahmadu billahi min asheytaani day dàq lépp luy ay ak yàqu-yàqu rawante na ay seytaane mi ngay muslu ba du la mën a gàllankoor te nag bismillahi moom day ñor ay yiw ak i njariñ kon nag dañuy jiital fekk ak yàqu-yàqu door caa teg di njariñ moo tax ñuy jiital muslu seytaan door a wax bismillahi rahmaani rahim mu ne nag alquran moom bu yàlla ne ñu laab ñi rek ñoo koy laal laal ga day yaari wàll laalug zahir ak laalug baatin laalug zahir gi moom mooy gi nga xam képp koo xam ni am nga laab yoon santaane ko sangu farata waree mu def bu ko jàpp waree mu def farataam nekkee tiim mu tiim rek dal nay mën a laal alquran laal ga ca des nag laalu xol la te mooy dégg ci xol dégg ci xol googu nag moom muy laalu xol moom bala ko yàlla may kenn dafa set ci sikki bakkan bu doomi aadama ci setee ci xeeti sikki yooyu nag da ko yàlla may mu dégg alquran ci déggin wa yàlla wasalaam wa qaala aydan إن العلم لك خم خم قسماني نار خيلة الحكم خم خم أرد والحكمة أقم خم حكم والحكم خم خم أرد ما ميلنغ خمني بين الواجب نكن ديغنتي اجوار والمندوب اك لونو صوب والمباح اك لانيو دغانال والمكروه اك لانيو سيب والحرام اك اجي ارام والحكمة حكمة ما موي لغا خمني يجتمعهم دانا داجي فيه تي موم هاسيه يله وخيروها اك يو بوك تك نيوم ولذلك غير لولو قال الله تعالى ومن يؤت كو خمني جوخيف نكو الحكمة خم خم حكمة فقد اوتي كون جوخيف نكو خيرا او يو كثيرا وي اجي باري sëñ bi nee na woon xam-xam ci wet day ñaari xaaj xam-xam bi àtte di wax ni nangam daa war nangam dañ koo sopp nangam daa dagan nangam daa araam nangam dañ ko sib ak xam-xam boo xam ne mooy xam-xamu xikma xam-xamu xikma boobu nag moom nee na day ëmbaale yee nga weesu muy xam àtte yi ba noppi nag ambaale lépp léppi lu am njariñ alxikmatu mooy xam gu am njariñ te man koo leerale ci ay baat yu jub xocc yoo xam ne ku ko dégg rek tëb daldi jëfe rek moo cay topp xam-xamu ma day ambaale shariha ambaale xaqiqa ambaale lépp luy rek xam gu jariñ moo tax nag suñu borom ne man yàlla ku ma jox xikma jox naa la yiwu bare bari wu ëpp wut wa qaala aydan inna allah naka yàlla taxalaa kawe na lamma xalaq ba mu sàkkee al arwaax ruuya jamihan boole seen xaatabahum waxante naa ak ñoom bi ci ne leen alastu bi rabbikum ndax duma seen boroom fa qaalu ñu wax jamihan boole seen ne balaa akay minhum bokk na ci ñoom man koo xam ne xaala wax na balaa akay ji tawxan ci coobarewu wa minhum bokk ci ñoom man koo xam ne wax na balaa akay karhan ci ak sib ci ak forcé rekk wa man xaala ku waxoon balaa balaa taw xan ci coobarewu nafaza sar na imaanu wa gëmam ga bi xal bi ci xolom ba wa man xaala ku waxoon balaa axakay ah kër xan ci forcé wala nga ne kur xan ci ak sib majja yàbbi na imaanahoo gëmam ga ba adda zaalika ci gannaaw loolee wali zaalika ngir loolu xaala wax na moom yàlla ne fa min kum bokk na ci yéen kafirun aji weddi wa minkum bokk na ci yéen mu'minun aji gëm wala ma àdd xale ba mu dugalee nag moom yàlla fii ajj saamil mu'minina ci yarami way gëm ña al arwaaha ruuya wal adnaas ak tëriya tilim tilimiya farat dawana al xikmatu xikma ba min al adnaasi mbir tëriya ngir cër ya nekk ca jëmm ja wala ma taabu ba ñu tuube rek tawbatan tuub nasoo xam guddi ab sellaa kon rajaxa dellusi na alxikmatu xikma ba ilayhim jëm ca ñoom sëñ bi nee na woon bi yàlla sàkkee yi daa waxante ñoom ne leen bi seen borooma ñu ne ko axakay fekk na nee na axakay ja am nañu ko ci wax ci nañu ko ci wax ci kaw force mooy béréb moo laaj loola rekk ñu wax ah kay mëni su faa tontu leneen waaye neexu leen ña waxan nag ah kay ci seen coobare ba ñëwee fii ci àdduna ñoo wéy gëm yàlla di ko topp ña waxoon ah kay ci kaw rek birub baa ko laaj buñ dikkee fii nag ñoo yàbbi seenu gëm maanaam ñoo génn ci gëm ga daal weddi moo tax suñ boroom ne man maa leen sàkk te naka jekk xamoon naa ne am na ci yéen ñu gëm waaye am na ci yéen itam ñu weddi bi ñëwee àdduna nag ba yàlla fabro yi sol ko ci jëmm yi ku gëm mom moom yàlla da koy baxé xam-xam bu am njariñ ak lèr wayé nak manki doomi adama ci ñak set ci setuk bakkan amé tirek bakkan moy tax melni xam-xam ba ak lèr ga dafa daw làqu waaye nak bu tuubee tuub gu sel rek moom mi gëm yàlla xam-xam ba am njariñ ak leer ga yépp ñu daldi roofu si ndax la leen taxoona daw muy ñàkk set léegi dañ na ci bi jëmm ci tuubee tuub gu sell wa qaala aydan inna naasa naka nit ñi xismaani ñaari xaaj lañu albaru aji baax wal faajiru ak aji saay saay wa amal barru dal aji bax fa in qadarta dim atan nga hala an tafala ci nga def misla fi alihi kem jëfum kon baxna wa illa bu fekke mëno ko nang ko top man nayit fatbahu nang ko top li yu'tiyaka kir mu jox la bi fadlihi ci ba nga ne min fadlihi ci ngeenelam la wal fajiru aji say say ay ra'aytahu ndéem gis nga ko fansur xoolal ilayhi jëm ci moom wansur te nga seet fii nafsika ci sa bopp wa in ra'ayta boo gisee fii nafsika ci sa bopp xayban sikk misla xaybihi kem sikkam sa fatub tuubal min daalikal xay bi ci soosee sikk tawbatan tuub nasooxan guddi ab sellaakoon wa qaala allahu taala wa fi anfusikum ak ci seen bopp afalaa tubb siroona ndax du ngeen gis bu baax a baax ndax du ngeen seetlu bu baax a baax wa in lam tara ndéem gisoo daalikal xayba joojee sikk fii ka ci yow fa firra kon dawal minhu ci aji saay saay joojee wala taqrabhu te bul ko jege tan ju kon nga mucc minhu ci moom wayeen ju te kon mucc min ka ci yow wassalaam sëñ bi nee na woon nit ñi ñaari xaaj lañu am na ku baax am na ku bon ku baax moom nee na soo mënee def la muy def ba baaxee ne moom kon loola def ko su fekkee mënoo ko nag toppal ci moom ndax nga am ci baaxam nga ci saay saay nag moom mooy ki bon boo ko gisee da ngay seet bu baax ba xam la ko taxa bon nga xool ba xam loolee ko taxa bon ndax yow am na ci yow walla amul ci yow soo gisee ne loolee am na ci yow nga daal gaaw tuub tuub gu sell sell su fekkee ne nag loola amul ci yow nga sant yàlla nag te daw ku bon kookee lu yàgg-yàgg bul ko jege ba mu la jege ndax boko jégué mba mu jege rek bu dal lay wal wa qala aydan li kullin ñel na kenn ku ne min al qalbi ci xol wal lisani ak lamiñ wa al jawarih ak yedes ci cër wa tanun ab dëkkuwaay wa qutun akub dundu fa watanul qalbi dekuwayu xol ak tawxiidu mooy wéetal yàlla waqootu wooti dundam ba niyatul xayri mooy yéeni aw yiw maxal xawaatiri ànd xalaat ya al mardiyati yadiñu gërëm wa watanul lisaani dëkkuwaayu làmmiñ al zikru mooy tudd yàlla waqootu wooti ab dundam xawlul xayri moo di wax aw yiw wa watanu baqiyatul jawarihi dëkkub ya des ca cër ya alwaajibu mooy taqoo aji war wal mandoobu ak lañu sopp waqootuhaa te seenub dund almubaaxu mooy lañu daganal almutawassalu la di luñ jotlikoo bihi ci moom ilayhima jëm ci ñoom ñaar muy waajib ak mandoob sëñ bi ne xol ak làmmiñ danga leen di bar kenn ku ci ne taxaw fee boo leen génnee ba noppi nag yi des ci cër yi moom itam nga taxawal leen fee ba noppi nag ne ku ne ci yooyu am nga foo war dëkk am nga loo war di dundee bu dee xol bi fa mu war a dëkk mooy wéetal yàlla la mu war a dunde mooy yéene lu baax ak a xalaat xalaat yu baax làmmiñ fa mu war a dëkk mooy tudd yàlla ab dundam ba mu war a dunde mooy taqoo wax lu baax yi des ci cër yi nag fa ñu war a dëkk mooy sax ci ndigal mooy def waajib ak mandóob la yàlla digle sañees koo bañ ak la mu sopp waralu ko waaye ku ko def mu gërëm la yi des ci cër yi moom foofu lañu war a dëkk seen dund nag mooy di jëfandikoo loo xam ne lu lew la ngir mën a def la yàlla bëgg mooy fexe ba am lu lew te di ko jëfandikoo ci lu yàlla gërëm mooy di ko dimbandikoo ci def li yàlla santaane te moytoo am lew ba nag yàq ko ci lu ñu araamal mbaa lu ñu sipp wa qaala aydan mahma taraaka saa yoo xam ne gaar na la xaajisun lot xan fi ali shay'in walis def dara mimma ci la nga xam ne umirta digaleef na la bi ci moom aw dafxi shay'in wala jiñ dara takrahu loolu da nga koo sib mimma la nga xam ne nuhiita tereef na la an walis ko fastain na nga dimbandikoo alayhima ci ñoom ñaar bit tawbati ca tuub ga an na sooxi nga di ab sellaakoon yaa xaw mi yéen sama nit istaxfiroo na ngeen sàkkoo jéggulu rabbakum seen boroom suma tuuboo topp ngeen tuub ilahi jëm ci moom yursil kon mu boyal asama asamaan si midraaran mbir muy ab yolaa kon ci taw xaleekum ci yéen waye sitkum te kon mu dolli leen quwatan doole ila quwatikum jëm ci seen doole jawoon amarakum digal na leen rabbukum seen boroom bil ibadaati ci xeeti jaamu yàlla yi li matti akum ngir mu xeewala leen fil axirati ci alaxira bil aadaati ca aada aada yi mooy lekk naa nag ak bànneexi yaram yi ci des niki bànneexu sëy laata ko noona du ngeen nekk min rijaalillahi di bokk ci góor yàlla yi illaa baxda an ndare gannaaw bu nekkee xalaawatul ibaadaati neex yitu jaamu yàlla yi mutasaawiyatan di aji yemoonte bi xalaawatil xaadaati ci neex yitu aada ya wa axlaate gën neex sax منها ha ca ñoom wali kulli ibadatin yal na gépp jaamu yàlla xalaawatun aw neexit fil jannati ci àjjana axlaa wo gën a neex minal uxra ci wa ca des waxtilaaful aadaati te wuutek aada ya fil jannati ci àjjana kaxtilaafil ibadaati mi ngi mel ne wuutek jaamu yàlla yi fi duniya ci àdduna wa min zalika bokk na ci loolee qawluhu taala wa abuddu jaamul rabbaka sa borom hatta yatiyaka ba mu dikkal la al yaqinu de ay limu ci nam al mawtu de wa min at ta'wilati bokku na ci ta'wiliya fil yaqini ci batu yaqin ay yulasima bu taqo asaxsu jëm ji hibadatahu jaamom ga hatat ma annat badal ilayha jëm ci jaamu ga jawarihu cërem ya li sëñ bi nee na woon saa yoo gisee ne def li la digal dalaa jafe mbaa bàyyi lañ la tere jafe la say boo gaaw daldi tuub tuub gu sell rekk dellu ci yàlla xamal na ñàkkul bàkkaar ak loo war tuub loo xam ne moo te nga mën a def lañ la digal moo te nga mën a moytu lañ la tere mooy ndi alxuraan ni jéggalu leen seen boroom te tuubal ko bu ngeen ko defee rek mu sotti leen taw bu baree bari buy walangaan may leen doole ju ci seen doole ya dafa mel ne loolu moom ñu baree bari lay dal ndax daanaka ñépp bëgg baax waaye daanaka kenn ku ne am nga loo xam ne baaxut bëgg nga ko bàyyi mel na nag bàyyi ga dafa laa jafe mbaa nga xam ne nangam day lu baax la boo sañoon di ko def te sax ca waaye ba tey def ga mbaa sax ca jafe la loolu lépp nag nee na ñàkk a tuub rek moo koy waral ku ci jisati ci boppam lu deme noonu rekk na daal di gaaw tuub tuub bu sell dellu ci boroomam daldi gis la ko jafe woon daal koy yomb seen boroom da leen digal xeeti jaamu yàlla yi ndax bëgg bu ngeen demee ca àjjana mu faye leen neexiti yi muy neexiti lekk ak naan ak yi ci des te mu ne bala ngeen doon góor yàlla dëgg-dëgg da di àgg ci jaamu yàlla neex ci yéen ñi nga xam ne moom la lekk ak naan ak xeeti bànneexi aada yi ni ki bànneexu sëy ni yooyu neexi ci yéen su ngeen àggee ci jaamu yàlla neex ci yéen ba àgg ci mel ne mar lool gis naan nga gën a neex ci yow mbaa xiif lool gis ñam wa gën a neex ci yow mbaa bëgg def bànneexub sëy ba noppi nag yàlla boole laag ku la lew mel na nga bëgg bu jaamu yàlla àggee ci neexi ci yoon noonu rekk kon booba doon ngeen dëgg-dëggi góori yàlla mu ne nag jaamu yàlla gune am na neex it ci àjjana wu bokkut ak neex yutu jaamu yàlla ga ca des xeeti jaamu yàlla yi dañoo bari te ci nekk am na bànneexu boppam boo xam ne moom la yàllay fayee ka ko daan def bu demee foofee ca àjjana nga xam ne ni nit ñi wutee fii ci am bànneexu àdduna noonu la ñuy wutee foofu ci am bànneexu àjjana li nga xam ne rek moom la xeeti bànneexi àdduna yi daqaatee noonu la xeeti bànneexi ajuna itam dàqaatee